asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bisub altine juróom-ñaari fan ci weeru rabiul awal atum junni ak ñeenti téeméer ak fanweer ak benn dëppook 22 février 2010 mooy bis bi Serigne Modou Kara Mbacké moom Serigne Ousmane jàppoon ngir siyaare Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké xalif général des Mourides ginnaaw bu mu tàggoo ay kilifaam di Serigne Moustapha Absa ak Serigne Cheikh Khady Mbacké mi nga xamante ni mooy xalifa borom daaru jox nañ ko ci ndigal boole ci sant mboolem waa daaru ñi ko mën ñu ànd ja te fekkee ko looloo waral mbooloo mi takk woon na lool ñenn ñi di gàttandu sëriñ Modou karaa ci li jumaa ji ànd ak sikkar ak tudd yàlla. bi mu jógee Daaru Muxti ba agsi ñu gàttandu ko ànd ak moom mu agsi fii ci mbaaru sëriñ Mouhamadou Fadilou Mbacké ñi sëriñ bi yebaloon muy kilifa yi ko doon gàttandu ràññee nañ ci sëriñ Cheikh Bassirou Mbacké ibnu sëriñ Abdoul Khadir sëriñ Cheikh Ndindi sëriñ Galas Kalsoum sëriñ Cheikhouna Mbacké ñoom ñëpp di njabootu sëriñ Mouhamadou Lamine Bara Mbacké lu jiitu sëriñ Modou Kara di agsi fekk na mboorom bari fees dell taalibe yi ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi dikk toog di xaar ci mbaar mi nga xamante ni moo nekk ci buntu kër Serigne Fallou Mbacké diir boobu yépp nag kuréelu xasaayitam di yëkkati xasida yu am solo di fàttali daaj ba nga xam ne magi daaru muxti yi daan ko jàngal maam Thierno Birahim naaw bi sëriñ bi agsee ba dugg si ci mbaar mi ànd ak kilifa yooyu nga xam ne ñoo ko gàttandu ñuy négandiku sëriñ Mouhamadou Lamine Baara Mbàkke yëkkati na fa ay bëyit ànd ak kuréelam bi nga xamante ni moo ko doon dëbbe وصومي وصومي وصومي السما بكل وزومه barkeelu yi bi indi moom lay jébbal sëriñ bi spécial na sëriñ Mouhamadou Lamine Bara Mbacke ab siyaaram teg ci ay kàddu Serigne Cheikh Bassirou Mbacke ibnu Serigne ñëpp déglu Cheikh Mouhamadou Ibrahim yàlla fi yàgg Mbacke te tey nag sadaqallahu mawlana al-azim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sëriñ bi fadilatu cheikh mohamadul amin ibnu cheikh mohamadul fadil xalifatul am li tariqatil muridiya ñoo ngi lay ziyaare ci turu sëriñ cheikh xadim mi nga xam ne moo di xalifatu cheikh ibrahim borom daarul mawti moom mi nga xam ne moo nu sant nu ñëw teew fii sa wet ànd ak lenn ci njabootu borom daarul moxti mu di sëriñ Modou Kara mii moom sëriñ Ousmane moom boroom daarul moxti ginnaaw bi nga xamee ne am na ndigal ci sëriñ Moustapha Absa mi nga xam ne moo di kilifam moom sëriñ Modou Awa Balla am ndigalam moom mi nga xam ne moo di sëriñ Cheikh Khady mi nga xam ne mooy jiite njabootu borom Daaru Muxti gépp ngir mu jóg tànk yi nga xam ne dafa mel ne ci pas-pas njabootu borom Daaru Muxti gépp moom la yóbbaale moom sëriñ Modou Kara mu di sëriñ bi mbir mu nekk lu yëngutu lu nekk la ko yëngal moo ko ëpp doole sëriñ tuuba ak borom Daaru Moxti seen ànd ga tey jii gën na ko firndeel firndeel na ko ci sa jataay bi muy keroog li la sëriñ Cheikh Khady waxoon bi nga njëkkee toog ci jataay bi ne la Daaru Moxti fasul yéene kenn jiitu ko ci yow Daaru Moxti fasul yéene kenn man ko ci yow teg ko ci nag fa boroom daaru moo ti tegoon keroog bi fi sëriñ Touba jógee mu wax ko ci sëriñ Mouhamadul Moustapha loolu kon bi nga xamee ne sëriñ Modou mii am na yéene siyaare si la siyaare si Cheikhul mu di loo xam ne siyaare la boo xam ne euh, lu nekk waa ma bi ni'mat rabbika fa hadis bu ko alquran dee wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne inna allaha yuhibbu an yara athara ni'matihi ala abdihi moo di ne waxtu woo xamee ne defal naa la xéewal man mi nga xam ne maa la bind bëgg naa na nga wane ko ba ñu gis ko lii wane xéewal la te moo di sëriñ Modou sëriñ baa ngi lay seereel moom sëriñ Cheikh Khady yow bi nga xam ne yow la ñu xoolee sëriñ Touba ci kaw suuf ne sëriñ Modou day kenn la ci njabootu borom daaru bi nga xam ne dëggal na ko ànd naa moom ci lépp loo xam ne mi ngi koy yëkkati te noonee la nga xam ne noonu la ko àndee ak sëriñ Moustapha Absa mi nga xam ne moo di jëwriñam nu topp ci ginnaawam di la seereel ne la njaboot gi lu yëngu lu nekk la ko yëg ak ko doole lépp borom Daaru Muhti mi ci biir sëriñ Touba lépp lu la jaaxal lu mu rëy rëy lu mu bari bari delloo ko ci sëriñ sëriñ Touba rek mooy ki nga xam ne moo amul morom te taxawaay boobu nga xam ne moom la taxaw ci wetam. mu di ko seereel ñaan itam nga ñaanal ko mu ànd ma kaaraange ak njaboot gi nga xam ne moom la àndal lépp mu njabootu Serigne Ousmane di njabootu borom Daaru Muxti